Bonjour, je suis un parent donc euh, d'un enfant de 12 ans, 13 ans, qui est au collège. Et euh, je vais essayer de traduire donc euh, pour les personnes qui parlent Wolof euh, le contexte euh, et le projet que l'éducation nationale veut mettre en place envers les élèves et les parents. bon nag maa ngi leen di nuyu di leen wax ne dama am doom boo xam ne. am na fukkee tax ak ñetta mu ngi nekk quatrième benn collège léegi li mu leen di bëgg wax mooy dafa am benn groupe boo xam ne dañuy liggéey euh, éducation national bu ñëw ñu xool euh, xale yi seen liggéey ak ñoom nu ñu mën a def ba xale yi daal seen liggéey gën a takku euh, li ñu li ñu li ñuy wax ci kër gi daal mooy ne dañu bëgg defal xale yi loo xam ne euh, yoon wu gën a yomb pour ñoom pour seen liggéey bi njàng nii njàng ak leçon yi ñuy jàng si seen classe ak école bi ñu mën a nekk liggéey boo xam ne ëllëg ñoom dinañ gis seen njariñ si li leen ñooñu di defal mooy professeurs yooyu ak euh, waa éducation nationale ñooñu ñëw di seet leen donc euh, ñoom liñ bëgg joxe mooy am na ñetti poñ ñetti poñ yi mooy trois thèmes Euh, tem yëpp moom mooy dañ bëgg xale yi ñu ñeen di jox liggéey boo xam ne bu ñu demee seen kër ñu mën ko liggéey mën ko jàng jàng moo xam ne du doon njàng mi ñuy jàng ci biir classe bi léegi beneen euh, poñ bi mooy noonu lu ñu mën a def ba xale yi seen liggéey nekk liggéey boo xam ne njàng bi njàng bi na nekk njàngam bu am efficacité ba nga xam ne ñoom boo liggéey ñooy defaral seen bopp te kenn leen kenn leen yedd wala kenn leen wan yoon wi beneen bi mooy ñu def ba nga xam ne ñoom dinañ seen liggéey dina dina mbëngoox li nga xam ne moom leen professeur yi euh, di joxe mooy euh, jàng moo xam ne daal ñoom boo liggéey ñooy nekkal seen bopp ñooy defaral seen bopp te duñu am kenn ku leen dimbali léegi ñoom daal dañ bëgg def benn yoon woo xam ne dina tax xale yi Euh, boo liggéey ñooy nekkal ñooy liggéeyal seen bopp daal de kenn luñ jàppale dañ leen bëgg aide daal ci loolu donc euh, liggéey bi yëpp daal mu ngi artoo daal si euh, pour que xale yi ñu mën a bu ñu génnee classe génn école collège bi bu ñu demee seen kër xale yi mën a liggéey liggéey boo xam ne dinañ permettre ñoom bu ëllëgee liggéey bi nga xam ne seen waajur duñu sonn duñu topp seen ginnaaw leen wax ne liggéey leen li jàng leen li def leen seen leçon def leen loolu yëpp ça ñoom dañu bëgg daal responsabiliser ba nga xam ne lu leen jox rek dañ ko mën defal seen bopp te du ñu si yaakaar euh, keneen ba tax na euh, waa éducation nationale bi ñëw dañu bëgg a wane ne xale yi il faut ñu jàppale leen ba nga xam ne euh, dinañu toog ba nga boo lëggee sax yenn waajur sax doo leen sonn euh, xale yi duñu sonn waajur duñu sonn bëgg leen liggéeyloo aussi si affaire u affaire u internet bi pour xale yi mën a liggéeyal seen bopp ba nga xam ne seen i devoir ak seen i yu bari dañ koy def si biir internet ba nga xam ne ñeneen ñooñu dinañ ko mën nañ mën a gis liggéey bi ñuy liggéey seen professeur aussi gis liggéey bi ñuy liggéey euh, ñoom seen bopp dañ mën a corriger seen bopp si li ñu jàng ba nga xam ne daal ñoom seen liggéey bi yëpp moom mooy bëgg xale yi daal réussir daal moo tax ñu mettre en place euh, tout ce thème ce travail bi nga xam ne euh, travail bi dootul nekk travail bi nekk si biir collège bi mais day nekk si biir kër gi et que par exemple bu ëllëgee ñoom professeurs yi li nga xam ne moom lañ yaakaar si xale yi dañ dinañ gis loolu ëllëg parce que nañ xam ne xale yi jàng nañ def nañ benn euh, travail de réussite boo xam ne ñoom dinañ permettre euh, ñu réaliser ñoom seen bopp seen devoir bopp te kenn leen ko jàngal bëgg nañ aussi xale yi seen bopp ñu ñu valoriser seen seen seen liggéey si si en groupe si classe bi et en dehors de la classe aussi mooy par exemple euh, bu ñu leen boolee ñoom ñëpp ñu nekk liggéey group boo liggéey xale bi dina mën a defal si boppam liggéeyal liggéeyal boppam te te du kenn du ko jàppale. Euh, et puis euh, affaire bi ñu bëgg liggéey aussi si affaire internet bi nañ bëgg aussi que boo léggéey parent yi mën a gis xale yi liggéey bi ñuy liggéey. ci biir internet parce que seen devoir dañ koy jaar léegi par internet ba nga xam ne ñoom parents yi ma ëllëgee mën nañ gis liggéeyu xale yi bëgg nañ aussi def loo xam ne dina permettre euh, relation bu am entre parent yi ak association yi ak lekkool ba nga xam ne bu ëllëgee xale bu soxlaa dara sax bu mënul jot waa professeurs yi mën a jot association association yi nañu nekk en lien ak euh, l'école ay les professeurs ba nga xam ne seen liggéey daal dañ bëgg mu gën a yomb si ñoom euh, léegi aussi dañuy wax ne bu fekkee ne tam dañu am euh, seen i maîtres yeex wala seen i professeurs yi dañu nekk en formation ñoom dañ defal ay liggéey boo xam dañ koy jaaral si internet bi ba mu mel ni que ne professeur bi mu ngi fi ba léegi ça fait que léegi xale bi ne demal day demal si boppam si biir internet bi jël leçon yi jàngal ko boppam euh, bokk ko ak ñeneen yi ñeneen ñi tam mën a gis li mu liggéey ñu mën ko corriger ñu bokk xalaat pour que xale bi devoir am daal mën a nekk liggéey bu baax daal ba nga xam ne bu professeur bi nga xam ne nekk nekku fi sax xale bi dina mën a def ay devoir am si biir internet bi donc euh, en même temps affaire internet dina tax aussi xale bi liggéeyam bi muy liggéey mën a nekk ak euh, di mën a jokkonte ak euh, ñu bari ñooñu dinañ ko mën a dimbali dinañ ko mën a jàppale aussi ba nga xam ne liggéeyam dina gën a nekk liggéey bu bu baax daal donc daal euh, liggéey bi yëpp daal li ma ko mën a tënkoo daal mooy professeur yi daal dañu bëgg xale yi seen liggéey am réussit moo tax ñuy def li ñuy def nii lépp pour xale yi donc euh, moo tax ñi nga xam ne dégguñu français bu baax mën a comprendre li tax ñu tegal leen thème bi mooy wane ne dañ bëgg def dañ bëgg xale yi daal ñoom seen boppa ñu am seen autonomie boppa mën a liggéey seen liggéey seen boppa jàngal seen leçon boppa euh, ba nga xam ne euh, boo liggéey yéen parents yi yéen waajur yi doo leen sonn doo leen topp seen ginnaaw pour laaj leen ndax jàng nañu wala jànguñu wala xam nañu wala xamuñu wala réussir nañu wala réussir ñu léegi ñoom seen boppa bu ñu leen joxee envie boobu dina leen permettre ñoom si seen bopp ñu mën a corriger seen bopp sax seen leçon donc voilà lii moo taxoon daal euh, ma def traduction yi pour wan leen ne ñoom seen liggéey bépp mooy seen doom réussir daal lañ bëgg voilà asalaamaaleykum.